maa ngi leen di fay du nuyu waa Sénégal. noo tudd. man maa ngi tudd amul amul yaakaar. foo jugee. maa ngi jugee Grand Yoff. Grand Yoff. waaw mooy amul yaakaar lan mooy loolu. amul yaakaar turu la bi nga xamante ne turu non sama waajur ñoom ma ko tuddee. am amul yaakaar. Ah. waaw mais bi nga teg sa boobu bi nii lan moo ko waral. couronne bi man lii bettu ma. combat bi démb bi bi ma yeewoo sept laa ko commencé di féete. par Christ par Christ Soulaye. sama diggante ak yàlla gëm naa loolu dama ne leen boo Ama Baldé daanee Modou ma dellu Guinée Bissau. loo fay def. maa ko wax waa Arafat. Ama Baldé Guinée Bissau la waa Arafat ñu ngi may dégg. ma ne Ama Baldé Guinée Bissau la jógee. déggoo li ma la bu daan. ma ne déggoo Guinée Bissau. nii lay demee. parce que Rasulullah. yow dem si guddi Modou bi mu duggee si biir géew bi sans gàllaaj takkul dara yow après nan nga psychologiquement lan nga def. xam nga maanaam nga am combat boo xamante ni maanaam man dama xam ni Modou day daan déggoo li ma la. parce que sëñ tu sept heures ci suba laa commencé yow di ko féete. la ko waxoon ne Modou Lo day daan daa am bu lu ko xoolal. non dama xam nga dama ko xam. noo ko xamee maanaam si si sogol da nga ko yëg sa yaram wala. dama xam ni booy bi dafa ay du nit. du nit. bi nit la. du ko ñaanal yàlla nag yàlla na ko ndam bi jik di di ñaanal ay waajuram di ñaanal ñu daje yëpp tey. lan nga ak waa këram waa Pikine li ñu doon wax yëpp démb ñu ñëw def leen lu métti. non waa Pikine waaw. Pape Sarr non mun na wax lu ko neex garaawul ñun loolu concerne ñun ñu ngi xaar Boy Niang na ñëw dégg nga man ñu ngi xaar Boy Niang fi ñu jaar rek sa waay Boy Niang doo xool foofu la ñuy jaar rek la. doo xoolee moom Zarko ko moom Grand Yoff nga jugee de kon yéen a bokk secteur. doo xool Boy Niang buñ la jàppee doo doy ah. waaw. maa ah, sant man Guédiawaye laa dëkk. écurie Waalo kay bu ma gisee sama tur la ñuy jaar. fan nga dëkk si géej waay. maa ak Alioune Seye ñoo dëkk moom léegi léegi laa doon déggante téléphone. sama xarit la. non moom sama xarit la rek mais moom démb da ne ma bàyyi naa àdduna parce que loolu mos a bugguma sax ngay wax. combat bu Ngor Papa Dia loolu laa ko waxoon ma ne ko Siteu bu Ngor tey la ko Papa Dia di daan Alioune Seye ngi nii kii daal Alioune Seye la mais Modou yàlla def ma bëgg ko xaw ma lan la quoi ma damaa bëgg Modou Lo rek. Abdou Diouf sama doom bàjjen la waalo waalo piir et la mais barki Seexu Tijaan mu bëgg a modlu sama juróom-ñaari maam waalo waalo kii sama rakk la ñoo dëkk mi ngi nii séer laa dëkk alpha alpha soirée sama maam saaxari soirée Souleymane Niang lañ ma tuddee bu doon def émission waalo waalo RTS waalo waalo piir et la mais Modou Lo mu duggee si biir géew bi sans mystique. waay sa tët naa fii bi mu daa bi mu bëreeg la de guerre ba pare na ko man waalo waalo laa mais dama laa bëgg bañ fatawu man damaa bëgg Modou. non bëgg ñëw si combat kay wax dëgg fa yàlla man a na loo xam ni wax waxaat du bëri wax yow démb ñi ñëw ci stade bi yëpp xam na ni Modou Lo amul fu ko Ama mën a jaar qualité yi du benn far nag dafa metti far moo metti rek xam nga ñu yaakaar ne saa yi Ama day tañax day day taxañ Modou dem mais Modou du genre boobu soo xoolee ñoom ñaar seen hygiène de vie ak seen carrière duñ benn la dëgër da leen wax loo xam ne ñoom bàyyiwuñ ci xel. mu leen Modou du mbër bu ñuy daw di ko di ko song saa boo day ko song pas par pas lay yow te démb boo xoolee bi arbitre ne par dafa arrière may ama confiance ama yaakaar yi ba léegi mi ngi ci làmb ji Modou na ko xaar ma ñëw Modou li ma gën a neex ci moom crochet long droite lay dóor ubbi la gauche kor loolu dafa da lay kor nga ñëw mu pomp la nga daal. jërëjëf. yaay booy maa lay nuyu. maa ngi lay ziar bu baax. yaa si jàmm. Samba dafa xaw a dee de waaw. indi dis nga yeewu. moom fii laa dëkk moom. Hmm. macha allah démb su guddi avant ñuy siffler fan la la affaire fan la la tolloon démb avant ñuy siffler. ah man mosuma déedéet barke sëñ Touba mosuma am stress lamb ji waaw bi ma doon jaabante daa fekkoon ma doon liggéey nekk ci togg yeeg yooyu looloo waral jaabante bi yow boo ma xoolee ba ma doon jaabante sax nga xam ne man aw ma stress lamb ji ah dafa mën a bëree nag tubaarikàlla macha allah daa mën a bëree xale bi. mais démb su guddi ay 20 heures Modou Lo nekk si biir géew bi Ama Baldé ñu nekk si artiste bi ñoom ñaar. Modou Lo takkul dara yow bi nga xoolee Modou Lo yow yaay booy nga daan gis Modou mu njëkk ak Modou Lo démb bi la la la jox. ah Modou Lo démb bi nitu diine la ma indil nitu diine ba muy génn fii gis ngeen ko daa tari ay aaya ñaan ñaan ci yàlla yàlla may ko ndam ñun yàlla rek lañ fi àndal billaay wallaay yàlla rek lañ ànd. moo yow doo bàyyeeg Ama yow yow Ama fi mu ne nii ruy laa ko bëgg a toggal yóbbul ko. moo tax loolu. dafa mën a lekk yàpp. mënta lekk yàpp mënta lekk ginaar ruy rek la day yëngal rek. moo daayax daay. day yëngal rek di guux la man yëngal guux rek la man ruy lañ koy toggal fan yi. ruy rek. parce que arxuraanu xeex da ngeen a dégluwul ay tafaagay day tropical lu nekk wax nañ ko waaj day soppeeku ba xam ngeen ni waaj day soppeeku. mais démb daa mel dafa réer si biir géew. non Ama réerul dafa tëlee maanaam adversaire bi mu doon gis toog di bataay ak moom. ak adversaire bi mu gis ci biir làmb ji bokkul. Ama Baldé bëri naa ak Zoss daan ko avec la manière bëri naa Gouye Gui daan ko avec la manière bëri Taphatine ama jour élève la boo xam ne du nangoo du nangoo admet trop ama xoole moo guy gi première la doon def jàllul beneen bi ñu arrière ko mu def terminal jàllul moo moo nees daa gàll moo ama déggoo lu ma la du mbër boo xam ni maanaam mbër la mais na rampe ba ci kanam dafa des kon da nga jàpp ne démb warutoon bëri moom non si mais yéen yéen yéen ñi nga xam ne yéen a ngi ci làmb ji yéen da ngeen a am déception yéen parce que jël na mu demee bett na leen pour yéen Ama benn mbër la bu ñëwee day duma Modou. ma mais mais mais man loolu man mosuma ko gëm sama àdduna. Modou du ma waroon daan ko. barke Seydina Mohamed ak waxtu yàlla bi sama bàmmeel laa taxaw làmb bi mu desee une semaine man xam naa ne Modou day dóor Ama quatre appels la koy daanee loolu wax naa ko fu ne. kon la ko waxoon Serigne daa am Serigne bu ko wax. jaamu yàlla di xiyaamu léegi teg ko ci am xalbul basira di jaamu yàlla xanaa gisoo sama jëbi xool xanaa doo xoolee wu jeex na. ñoom dë ñoom Baye Pël Zarko ñun ñëpp si école bi lañ nekkoon fii daan liggéey kon Modou suñ Modou la Modou ñun ñoo ko moom ñun waa Malika ñoom moom Modou la waa parcelle moom mënu ko de wër na Serap Fall mais làmb ji ñun dafa leer si ñun laata ñu koy bëre dafa leer si ñun naa ñu ko parce que man samda si guddi tëdd daan di nelaw ma xamal magam ma ne ko yaaram mu ne ma waa ma ne ko gëy mu ma waa ma ne ko làmb ji jeex na. làmb ji jeex na mun ma ndax lan làmb ji jeex na man ko Modou Lo koy wër ndomba mais dina am ko jógee ci kër Ama Baldé day daw dugg si esaat bi moo tax bi làmb jeexee mu xëcc ma na ma doo nit ma ne ko non lay yàlla suñu borom la ndax Modou maanaam dañu yàgg ak moom Modou dañu xam maanaam Modou tey bu ñu woote woon xare Badar mooy jiitu ci porte bi ndax maanaam dawul coow gaynde la li mu wax rek moom bandi biir géew la mais du nit koo xam ne day toog di wax lu ko neex di wax di def lu ko neex non non Modou raasu nit boobu Modou c'est le champion waaw individuel la boo xam suñ biir kenn du moom ñu koy ñaanal nag bisi ci kanamam suñ borom defal ko ci ndam comme nii rek comme dab rek di ñaanal yaayam yàlla defal ko tawféex may ku gudd fan ak wér di ñaanal diwaan bi ñëpp kër gi ñëpp bàyyiwuñ kenn xale ba ci mag di ñaanal parcelle 1 ba 26. ñooy ñaanal ñëpp tawféex di ñaanal ay soxnaam ak ay doomam ñoom ñëpp ñu ngi leen di ñaanal jàmm xamal ma la wax di ñaanal grand frère yi ñoom xaadim ñoom yaaram ñoom ñëpp ñoo ngi leen di bëggee di leen siyaar di leen wax ne xam nga félicitation victoire bi ñun ñëpp ñoo ko bokk waa Malika montagne nañ ma xaar mbëbës maa maa ngi dawal ndigal léegi ñëw bu nekk daa am mu laaj waaw si ay combat am nag am na combat am dañu takk ay jaaj ba fees liggéey mën a daan suñu mbër yóbbaale suñu mbër mu daanal ñu mbër mi ñu jógee fa du man ax moom dama laaj Eumeu Sène Eumeu Sène daa si làmba ji di wax ñaari yoon laa ko tër Pikine taxuñu maa jug ñoom taxul ñu sax may wax waaw Balla Gaye sax bu bëggaatee ñun ñëwaat ñun pare nañ pare nañ si mbër yëpp bàyyeeguñu làmb ñun taxuñoo jug du man ax ñoom di naan jërëjëfe yàlla suñu borom te nag kontaan naa si mbiri di sant sama yaay ak sama ñun ni ñuy préparé combat bi comme niñ ko daan préparé rek parce que ñoom ñaar Pikine lañ dëgg ñoom ñëpp taxu ñoo jóg man moom mun naa ni ma koy daane si kàttanu yàlla te waaw te moom ma Modou Lo du ñu bëre man ak moom boobaa ñooy bëre bu ma songee dëggal boppam naa ko dóor mu daanu daan bu amul Sénégal bu ma jàppee dinaa ko daan bu daan boo xam ne amul àddina man maa ngi tàggatoo asalaamaaleykum wa rahmatulah li kaane